dégg nga infitaar daanaka mook saar wii nu génnee noo bokk nu ñuy waxee yowmal qiyaama rek lay wax wane ne dana ñëw te bis bi ngeen di gis yi may wax ci ngeen di xamee ne lépp dëgg la ci ngeen di xamee ne wax dafa am jeexlu waaye dafa am daaneel de waaw bismillahi fukki aaya juróom-ñeent la mm-hmm. juróom-ñett fukki baat ñetti téeméeri xaraf ak ñaar fukk juróom-ñett ida samaa bu fekkee ndegam janti asamaan sii mm-hmm. un fadarat xottiku na malaayka yi cëppeelu benn par benn mm-hmm. hmm. nga jàkkaarloo li ci biir asamaan yépp nga xam ne yéen daan toogum yàgg na atati sama wa xoqa alayha an ta itta daana wax ne asamaan a ngi kiic kii ji hmm. te yey na ci moom nag mu kiic kii ji ndax dem na ba fenn fu malaayka mën a tëg jéem ci asamaan yi amatul pour mën sujjóot ndax fees boo jëlee lu diis yàpp ko ci matériel na nga déggee muy kiic kii ji ndax diis comme oto boo yeb ba mu diis hmm. nee na asamaan noonu lay kiic kii jee yéen daan toog fii di dégg ni muy kiic kii ji waaye ñun duñ yénantu moo tax mënuñ ko dégg hmm. waaye la fa nekk yëpp nag suñ jekkee-jekki ni jamees fii ah dana métti war nga xam ne mbir am na way yel ko waaki bu fekkee bidiw yi hmm. un tasaaroo nañu mooy wadd nañu di fàq benn par benn hmm. way del bi xaaru bu fekkee ne géej yi hmm. fujjirat balleleef na leen géej yi ci àdduna yëpp ñu jël leen yu neex yeeg yu naqari yëpp dex yi yëpp ñu jaxase leen ñu nekk génn géej xàmmeetoo ci benn way del qubuuru bu fekkee ne bàmmeel yii boo asiran yëngaleef na ko lépp lu nekkoon ci biir bàmmeeli génn bu boobaa jawaab jàngook alimat xam nafsun bépp bakkan buy gis lii maa qaddamat lépp lu mu dawaloon ci jëf wa aqarat ak lépp lu mu yeexe woon bis boobu dana xam nit yow laay waxanteeg delloosil sa xel ni yaa ayyuhal insaan hmm. yow moomu ñuy woowee nit hmm. maa xarraka hmm. ana lan moo la toromte wala lan moo la nax bi rabbika ci sa borom bile alkarim bay aji tedd ba nga sañ ka mooy lan moo xew lan moo la nax ci yàlla ba nga yàpp yaakaar na lépp jàmm lu xew daa daaw ma da saa bu ko déggaan mu ne wallaay réere ko rek kooku ma sa wax aay jooju muy réere yàlla rek moo tax nu ñu koy mooy de réere ko dong nag képp waaye doomu aadama itam réere borom bi subhanahu wa moo tax ñu sañ def yenn yi waaye ku ko xam piir da nga ko sa kémta lay kattan mën na la duma ba pare nag te du ko teree nekk karim du ko teree nekk rahim bi lu dindi dara kon loolu bu mu la nax de alladi mooy buur ba nga xam ne xalaxaka bind na la gannaaw ba nga xam ne nekkuloo woon dara fa sawaaka mu yemale la ba nga ne rojj rojjaalal say cëri yam bindewul nga ne xaj bindewul ne golo bindewul ne xar bindewul ne kinaara waaye fa sawwaaka fa adalaka mu la nag loxo yeeg loxo yi tolloo mu laa fan loxo bi benn loxo bi sut benn loxo bi di benn bi sax fii ci mbagg bi benn bi gudd ba ci tànk ba xam nga loolu boo koy xool ci bind jekkul mu defal la benn nopp kese mm. moo na nga defi benn bakkan bi mu saañ ko nii dana rafet ngay doon <laughs> waaye faadalak moo tax mu ne fii ay suuratin ana benn ci melokaan yi maashaa boobu neex na ko rakabaka la toggalee ba nga mel nii nga mel nii xoola melokaan yi mu la def rek bi ka ci neex gën ci rafet ñii mu def leen ay góor ñu góore ñii mu def leen jigéen yu jigéene ah waaye nag fii léeg-léeg nga gis fi góor jigéen ñuy jigéen góore góore di wax na góore waaw gis it góor ñoo xam ne dañuy jigéen jigéen lu ne wax na jigéene waaye yàlla di defewu ko noona ñun kay ñoo jël melokaan yooyu di ko melokaanoo kalla delloo si leen seen xel yi xéewal geeg teraanga geeg wér gi bumu leen torompee ci seen borom ba ngeen bañ ko nangul loolu du mooy continuer ak de mm-hmm. ba li nekk mooy mm-hmm. tu kasi mu da di weddi rek mm-hmm. bi diini ci yowmal qiyaama waaye bëgg naa ngeen xam ne wa inna aleykum nekk na fi yéen nit ñi la xaafidin ay garde ñee yoo xam ne ñooy garde li ngeen di def saa boo jëfee lu baax ñu bind soo jëfee lu bon ñu bind waaye lu bon la nag daañ ko yéex a bind daañ la may lu toll ak juróom benni waxtu xool ba xam ndax daa ko tuub wala doo ko tuub soo ko tuubulee ñu door di wax nañ ko bind sa benn lay doon kiraaman ñoo xam ne kiraaman ñu nekk ñu tedd lool ñoom kaati bi ni ñu woy bind la ngeen def ñoom nag yaalamu na xam nañ bu wér-wér maa taalamu maa tafaalu lépp lu ngeen def nee na inna labraar wér ñu baax ñi te mooy jullit ñi la fi naimin ñu ngi ci xéewal lool waaw mooy jullit ñi waaye way nel fu jaara saay saay si dañu weddi yàlla la fi jahimin ñu ngi sawara su rëy te mën a duma gis nga ñaari baat yi ni mu ne nakiralay affaire la màggaayu mbir màggaayu xéewal gaa tax mu nakkiral ko te màggaayu duma gaa méttiwaayu sawara ga moo tax mu nakkiral ko beneen bi ci des na foofu beneen mu xaabala abraar ak fujjaar dégg nga ko baax ne yeslaw naha daañu dugg ca biir sawara sax yawma diin bisu fayante ba wa maa hum den ñoom nag bi gaay bi na ñuy way faddu way mën a génnati an haa ci sawara soosa sax abadan wa ma adraka mu def san ru lit lan moola la ma maa yawmu diin lan mooy bisu fayante ba su ma ma adraka topp xamala guma la yawmu diin lan mooy bisu fayante ba yow ma yow mu boobaa irab bi dafa saate yow ma final joo fi asaf rek lay doon yow mu ba tey boo fi asafee lay doon yaa xam nag loo fi nettale bu fekkee da nga sax fàttalikul yow ma bis ba nga xam ne hmm. laa tamliku du moom du yilif nafsun benn bakkan hmm. li nafsil ñeel moromu bakkanam hmm. mënu ko jariñ foofa ci kanamu yàlla say an dara li doy na waar pour loolu nag yow mën a dégg ndax nit a ngi faatu fii te mënoo kaa dekkal yow ma laa tamliku nafsun li nafsin koo mënul dekkal nag soo da nga dugg dugal aljana kooku yaakaar na ay seri lent jombas la te boobaa wala amul mbir yépp yow ma sin bi lii di xew nga xam ne kenn du mënal foofa kenn dara lillaahi yàlla dong kese moom mbir yëpp ci moom lañ koy delloo saar woow noonu la day mu tafi fii màkka la wàcc fanweeri aay la ak juróom benn téeméeri baat ak juróom benn fukk ak juróom ñeent di juróom ñaari téeméeri xaraf ak fanweer mm-hmm. ni saari màkka yi waxee ni la waxee mm-hmm. waaye li gën lëng nee ñu mooy saar woo xam ne madina la nag hmm? mm-hmm. madina la wàcc ndax dañuy wax ne mooy saar wi njëkk wàcc gannaaw ba yent bi gàddaayee gannaaw ba yent bi gàddaayee mooy saar wi fa njëkk wàcc boobu la nag commerçant yi nekkoon ci marché madina ci luuma ji dañ daan na yor na teekaay yu bon yor ñaari natteekaay su ñuy jënd jël natteekaay bu baax bi ku ñuy jaay jël dóoreekaay bi dóor la ci ba nga ba nga tàlli niw pànket ñu bàyyi xel na nag al ibratu bi umumi lafs laa bi xus sabab yenent bi di wër ci marché bi ba mu yàgg gis gaay ni ñu yàqee balancé yeeg natteekaay yi mu ne ah xamsun de bi xamsin moom gaay na ah waaw lu muy wax ni mu ne xamsun bi xamsin de di ko wax ci marché bi ñëpp fàq nag kenn waxul kenn ñëpp di dégloo mu ne maa naqada al ahda qawmun illa sallata allahu alayhim aduwahum moo leen juróom de juróom lay waral gaa yi nag waaw loolu moom lu mu mu ne aw nit duñu fecc kóllëre mukk mukk mukk muk lu dul yàlla kiirtal na ci ñoom seen noon yoo xam ne dañ leen di kall këllee bu fi duñ ci mën dara xoolal Sénégal nit ñuy feccee kóllëre nit ñi tey koo ci kóllëre ñaari fan ñett rek tabaarakallaahu la yàlla xam doy na fecc kóllëre googu nag moo tax yàlla dañuy booleeg suñuy noonu yoo xam ne lu leen neex def te duñ mun dara wa ma hakamu bi gayri ma anzala allah illa fasa fihimul faqr yenent bi nee na aw nit duñu ñàkk attewoo téere bi yàlla bi lu dul yàlla siiwal na ci ñoom ak ñàkk kon ndeke ñàkk gii ñu ñàkk fu ñu toll di jooy ak ñàkk di ko tawat réew mu dafa makki dafa nii dafa naa tabaarakallaahu yëpp nee na nu ndax ñoo fi bàyyi atab yàlla di def leneen yàlla tasaare ci ñun ak ñàkk waaye wa maa zaharat fihimul fahisatu illa fasa fihimul mawt kooku moom ñun ñëpp xam nañu ko nee na njaaloo du tasaaroo ci aw xeet mukk mukk mukk mukk lu dul dee tasaaroo na ci ñoom ñaata yoon ngay dégg RTS muy tàgge fajar gi tàgge moom moo ci yenu pekk bi yeneen rajo yi ak ñu àgg ci rajo yi téléphone yeeg Facebook yeeg tabaarakallaahu YouTube yeeg journal yeeg yëpp bi bu set WhatsApp beeg yëpp Viber beeg yëpp nga dégg gaay di ci tàgg hmm? waaye itam la ma tax di wax ci hadis bi mooy wala tafafu l kayla illa muniu nabata wa okisu bi sinina min al qahd yonent bi nee na aw nit du ñu yàq seeni balaas mukk mukk mukk ku ñuy peesal nax la wala ku ñuy jaay nax la ci biir njaay mi lu dul yàlla naa leen nattoo ati bekkoor bekkoor bi ñu nekkee mbay muy tëë àgg gerte gi tëë ñor nawet yi cëkk yi nee na nuna du kenn nuna nañ matal ba nañ matal na teekaay yi wala muniu zakata illa xubisa anhum alqatru nee na aw nit duñ gànt bañ a génnee asaka ke leen yàlla génneloo asaka lu dul yàlla dana tëye am ndoxam kon taw bii di cëkk itam tabaarakallaahu ñun ñii ñoo tax taw bi cëkk ndax dañoo nangu te génne asaka ngoog loolu daal lañ doon jàngal mu ko jàngalee dégg na ko waaye noonu moo amee woon ci jaaykatu Madina noonu la amee ci Sénégal itam jaaykatu mango yaa ngay dóor fële Mm. jaaykati tisi yi di dóor fële mm. jaaykati diw yi dóor fële mm. jaaykati tamaate yi dóor fële jaaykati leneen yi jaaykati leneen yi otokat yi di dóor fee ñëpp ci bokk yam waaye lun mbugal wenn xur la bu nekk ci sawara woo xam ne yonent bi nee na ba yàlla sànnee bu ñu sànni woon xeer avant ngay dégg kéng nga ci ca taatu sawara wa dana mat ñeen fukki at soo jëloon comme nga jël kurus gi nii mu départ nii bala ngay dégg tëll ji ñeent fukki at la yàlla ne na xur woowu nag naa fa dugal lil mu tafifiin ñeel kat yi ñi nga xam ne hmm. bu ñuy peese hmm. peesel nit ñi hmm. dañ koy wàññi suñu natal nit ñi tabaarakallaahu suñ leen suñ leen jënd ñoom dañuy matal suñu natal nit ñi wàññi ko li mu dal fii ni ñeel na tisi yi di dañ naan laa meetar la dóoral la yaar bis bu dem nga gis ko dañ naan laa original laa lay jaay jaay la foo jaay la ko it njëgi original dóorkat yooyu ci lañ bokk leen mu tafsiin portable laa lay jaay original laa lay jaay ndeke woo ab dubaay lañ la dóoree dëbul li ñaan nekk kooba ci sa kaw leen mu tafsiin ah da ngaa jiyee jugee war a ñëw si Ndar sofër bi wala apprenti bi waatal la ba ne saay ba jaaxaan tabaarakallaahu ne leen Ndar laa jëm laaj la paasu Ndar ñëw ba Kébémer di wootantey téléphone wala ba ngumba wala Tiwaawan commencé jokkonte téléphone nag naan sa waay nañu daje Kébémer fekk ma Kébémer su ko defee teggi tànkam pour waa ji ci ginnaaw dab ko lil mu tafi fii la ngeen te woon def ko moo tax téere yi lu ñu la jàngal lu ne soo ko bàyyi gis conséquences yi xam nga téere yi dañ ne la soo yéegee ci dara di dem bu bul a fay gi ndare bu da ngaa àgg fa nga jëm ndax conséquences yi ci mën a am ci diggante maanaam li ci mën a am ci diggante bi bu la jekkale woon nga fay ko diggante téeméer ak ndar xaw ma ak ak ak ndakaaru mm-hmm. la jeex nga xool oto bu la neex nga jël dem sa yoon doo fa tardé ti waaye fañ lay téye nga am soxla waxuma loolu sax bu fekkoon bu oto bi ñëwee ñu ci mu dem sax mu baax waaye boo amee seetlu ñaari apprenti yi dañuy bëgg a dóorante ci seen xam naa nag waa ji oto rek lay seetlu seetlu moo ciy yéeg mm-hmm. nga dem feneen portable kat yi ñëpp lil mu tafi mm-hmm. doy na waar moo tax yàlla yàlla comprendre li ci des nga dem puut di jënd mango ñu ne bool bi lañ lay jaay ay xeer nekk ci biir ngay calcul bool fekk la ci kaw rek la man de xam naa am nañ poids sax nag man bool bi nii yenn te duñ sonn tool bu ñëw ñu dang ci dang ci xool loolu rek bal xaw mi mbaar ci yaawan def boobu jaagati mango ah <laughs> fa naa ak yu nëb yi ak yu nëb yi jiital ci suuf sax lépp lin mu taw fii te bu fekkoon mango ji ñu teg ci kaw sax ji ñu dawal ci suuf sax dana nekk bu baax mu tane hmm. waaye léeg-léeg dañ ci raxaale yu nëpp yoo xam ne lépp lil mu tam fii te waxoo ki ngay jaay ne nii la demee moom donte am na ay donte yaar nga koy jaay loo ko mën di jaay rek hmm. ne ko lii am na nangam ak nangam mu xool buy jënd mu jënd bu jëndul itam mu bàyyi fa seeti keneen hmm. lii la sariya wax jeex na ma nga ah, fay nga pare wala lu ci bëri da ngay dem ba ci biir ba yéeg ci oto ba oto ba départ nag moom ko yàlla yàlla comprendre li ci des rek nga nekk ñoo ñooy ñan mu ne àllësini mooy ñi nga xam ne ida taalu ndegam ñi ngeen natt nattal dégg nga alal naasi ndegam ñi ngeen natt lu kon afan alal naasi ci nit ñi yastawfuuna dañuy sàkkoo matal lañ leen di nattal suñuy jënd pot ba ñuy yor pour ñu jaaye leen ci pot boobu dañ koy matal waaye way daa kaaluhum ndegam ñi ngee nattal nit ñi walla ñi ngee nat nattal nit ñi wala nit ñaa ngi nattalu ci ñoom mm. awala nuhum wala ñuy peeseel nit ñi mm. yuxsiruuna ñu wàññi ko mm. lañ leen di nattal bu fekkee baskili la xam nga ci gaay bu ñuy peese gerte yi baskili foofu ci seko yi yéen dóorkat yu mag yi xam nga li may wax yow taxa laay nag doo xam loolu ndax yow jaaroo foofu wala nga dem ca baskili yi peese soble ya mbaa pombiteer ya gaay foofu dóor yu métti lañ fay dóor yàq faak sama borom ne ñiy def loolu nag alaa yazunnu xanaa dañu foogul wala de dana wóorul ulaayka nag gaa yooyu annahum naka ñoom na xanaa dañoo xamul ne ñoom ñu ñuy dekkal lañu aha kay daañu leen dekkal li yawmin adiim ñeel bis bu màgg yow ma bis la boo xam ne yaqumu dana taxaw annaas nu ñu bàyyi ko seen bàmmeel li rabbil alamin ñeel yàlla mi nga xam ne mooy borom mi fii pour mu régler dossier yi kallaa dama ne dëgg-dëgg li am ba inna kitaabal fujjaar naka téere jëfi ñu saay-saay ñi la fii si jiin mi ngi ci barab wala la fii si jiin mi ci téere yëpp firé nañ ko ko ah yaa xam foo ci ñoo di jëme benn téere bu nekk ca suufa suuf juróom-ñaar la nee ñu foofu la iblis dëkk ak i gaayam fa la ñuy indi seen jëf wa ma adraka xamala guma la lan moo la xamal mbaa si lan mooy si jiin loolooy lan mu nekk kitaabun de téere la marxuumun bu ñu bind kaste ko denc ci jëfi ña xam ne nañ doon jëfe baaxul oh, tuug waylun mbugal yow may suñ bu ko regee lil mukazibiin ñen la weddi seen borom ñooñooy ñan alladina moo ña nga xam ne yukazibuun daanañu weddi bi yawmi diin ca bisu fayante ba mooy yawmal qiyaama wa maa yukazibu warul mën a weddi nag bihaa asawla bihi ci yawmal qiyaama illa kullu mu'tadin lul bépp lul ab jalgatikat boo xam ne asimun bu mën bàkkaaru lool la mën def njuumte lool ci digganteem ak boromam rek mooy weddi yawmal qiyaama nga xam ne idaa tutlaa bu fekkee jàngeef na alayhi ca kooka yaatu ayaatuna sunu alquran ji mm. ba teer ci moom mm-hmm. mu yëkkati kàddu gu ñaawee nii mm. ah lii kay asaatirul awwalina mm. léebi mag ñu njëkk ñi rek la mm-hmm. waa baax na kallaa mm-hmm. tëddewul noonu ci dëgg-dëgg lii du léebi mag ñu njëkk ña koo déggee ñu wax alquran ba pare muy saboote alquran ji wala muy saboote ña koy jàng naka woor na ruugi tawat na ruugu tawat nag du docteur a koy gis du docteur yi yor mi ci koy gis de dee ko yógey gis ak rajo yi rajo yi de déedéet mm. kooku moom nit yàlla yi rek wala ci yetin bi jàngale woon mm. del bari looy si siyaare bàmmeel wala ngay bëri looy tudd yàlla wala ngay jàngal Alxuraan mm. ruugu tawat nag mooy xol bu feebar rek te du estomac ak du nangam nangam ak du yeneen yi xoli feebar yi daal yenen feebar jàngoro xol yi rëy ak ngistal ak weddi yàlla ak iñaan ak yooyu yëpp ci jàngoro yi lay bokk bal fi nekk mooy raana not na ala qulubihim ci seen xol ya sax na ca mm. maakaanu la nga xam ne nekkoon nañ yegg si bu nu di ko fàggu ci mooy yàlla moo xumaag loo xol yi mm. yéen dem ne boo defee njuumte mm. day nekk benn tomb bu ñuul ci sa xol gis nga njuumte yooyu gën di def nag te tuubaatoo ko day dem ba muur xol bi xol bi ñuul kuk dara yàlla dootu ci mën a duggati loo wax mooy nit ñi dañoo bëgg lu yomb loo wax mu ne après waaye nag nangam nangam hmm? gis ko xol nag bu àggee foofa boromam feebar na te bu feebaree yéen bi jàngal na ci solution kallaa dëgg-dëgg mooy mm. innahum naka ñoom ñu mel nii mm. nga xam ne seen ruu yi dañoo tawat mm. a rabbihim fa seen boroom yawma sun bi ko ragee la mahjubuun ñu ñuy yiir lañu ba duñ mën a jàkkaarloog borom bi subhanahu wa taala su may noom topp naka ñoom daal la saalul jahim way dugg lañu sawara te sawara nag dana leen lakk-lakk yoo xam ne dana métti lool su ma yuqaal topp def ne wax mm. haada duma yii mm. alladi moo la nga xam ne mm. kuntum nekkoon ngeen tukazzibun doon ko weddi bihi ci duma yi kallaa dëgg-dëgg inna kitaabal abraar naka jë téere jëfi baax ñi ñi nanguloon yàlla comme ñun ñii la fi illiyin ma nga ci illiyin benn barab la boo xam ne tabarakallahu fa la jëfi ñu baax ñi daje ñi neen déedéet aljana la ñii ne ma nga nekk ca juróom-ñaari asamaan ci suba aras fa la ne mm. ñii ne barab la tabaarakallaa coow li am ci sijji mm. moo am foofu wa ma adraaka ana lan moo la xamal mm. maa illiyuun lan mooy illiyuun téere boobu lan moo la ko xamal mu ne kitaabun téere la marxumun bu ñu kaste def ci jëf ñu baax ñi yasaaduhu dana seede téere boobu dana ko gis wattu la ca ne malaayka yeey way jege seen boroom ñooy garde jëfi jaam ñi di ko bàyyi xel étape par étape nee na labraar wér na ñu baax ñi la fi naimin ñu ngi ci xéewal xanaa loolu doyoon na waaye gën ñoo bëgguloo xéewal gi ak gën ñu koo soppuloo moo taxal mu doxal lit naa bam boobu ne alalaayki daañu nekk ci ay lal yanduruun daañu xool xéewal ga taarifu da nga xam fii wujuhihim ci seen xar kanam ya na darata naim mm-hmm. na taxu xéewal mm-hmm. xam nga nit ku ci toll mm-hmm. toll ci digg dënd yi léppi dox soo ko gisee doo ko laaj ah sa waaye temps yaa ngi ci dara rek mu muuñ ah lu muñee a ah, dé da ngay sóob rek man kay temps yi noosuma dara dal di muuñ ah <laughs> bu fekkoon noosu naa waxee ne nurul noonu sama borom nee na ñey nekk ñey nekk aljana ëllëg nit yi nag seen kanam yi nag boo ko xoolee na ne ñii ñu ngi ci naataange yusqawna def nandal foofa ca biir aljana ja min raxiqin ci benn xeetu sàngara maxtumin bu ñu kaste nga xam ne xitaamuhu saañ ba wala saxañ ba loolu de maa ko miine woon ci ma euh, albani albani mooy wax saxañ ba saxañ nag xam naa lenn ci wolof yi saalum saalum la am na ñoo xam ne saañ lañuy ñuy wax wala kubéer waaye saxañ moom seen boor boobu kay wax de a <laughs> koy wax ndax ko daan wax seen boor Suleymaan mm. moo la wax saxañ bi waaye saañ bi la rek mm. yàlla nee na xitaamuhu saañ ba wala kubéer gi kal misk mu dagg aadaat baag yëpp na miskun mu nekk waju boo xam ne tasbih baleeg la jëmmi misk la mm. kon kubéer gee neexee nii la ci biir da masama la sama borom no fii dalika ci lii dong nag mm. xéewal gi kese kese kese mm. fal yetanaafasi na xëccoo mm. njëkkante almutanaafisu kuy njëkkante na njëkkante lu baax lii kuy sellal nanga nga sellal ngir lu baax lii hmm? gis nga ko waaye di njëkkante ngir leneen lu bokkut ak lii yaa ngi ci wa misaajuhu la ñu jaxaseeg sàngara sa min tasniim bàyyi ko na ci tasniim benn sewnde bu nekk ci biir aljana la nga ne ko rasli mooy lan mu ne ay nan aynan seewnde la bu bopp des na naan almuqarrabuun way jege ñi seen borom bihaa ci seewnde booba waaye nee na inna li si naka gaa yi nga xam ne ajramu tooñ nañu bokkaale seen boroom weddi yàlla ci aduna kaanu nekkoon nañu min alladina ca gaa yi nga xam ne amanu gëmoon nañu ci aduna comme ñi gëmul yàlla tey ni ñuy saboote ñi gëm yàlla gisula yadhakuun di leen xaqataay mm. ak a mokke mm. ñi jéguñ jamono xamuñ bu ñu taxaw mm. tax na way daa maru saa bu ñu rombee jullit ñi bu ñu rombee bihim ci jullit ñi wala jullit ñi romb leen yetaxaamasuun ñuy piisantee ka wokkantee ka kolaasantee ka mesaasante kay na nga xool leen ñu tardé ñu ngi dégg di jamono ñii waaye way leen xalabu bu ñu delloo ilaa alim jëm ci seen ñoñ in wa waññiku nañu faakihiin nekk ñu yéemu nekk ci jullit ñi man de ñii daal dëgg-dëgg man xam naa seen mbir doy na waar ñii daal man lu yënd bi dafa peeg leen rek jaaxal na ma di xakataay akaree way daa raawhum ndegam gis nañu jullit ñi xaalu daañu wax inna haawulaay naka ñii topp sayyidina muhammad xaw ma ñande waa ñoom la daaluna ñoom dañu réer lii la ñuy wax i foofu nag yàlla di xam la ne ñii topp njol màkk bu ñu réeree ñoom ñooñu yónni wuñ leen pour ñuy garder ña topp sayyidina muhammad wa maa ursilu yónneeful ñi weddi yàlla alayhim ci ñi gëm yàlla xaafidin mbir moom ñu leen di way gàdd di gàdd seen lépp yàlla santu leen lool dem nañ yowmal qiyaama teew na fal ma tey fii ci yowmal qiyaama allazina gaa yi nga xam ne amanu gëmun nañu ci àdduna te yadxakuun daañu xàqataay ak a ñaawal ak a mokke ak a mbalak minal kuffaari tey te suñ koy def nag ñoom jullit ñi alaa daa ki nekk ci kaawaay lal yan yanduru la ñuy xool hmm. nañuy dumaa yéeféeri ya hmm. ñi leen di xàqataay comme ni leen yéeféeri doon xàqataay ci àdduna hmm. sama borom hal suyu ba ndax fayee ful alkuffaaru yéeféer yi maakaanu la nga xam ne nekkoon na yebal li def ci musiba aha kay fay ba wis kay jazaan wi faaxan saar woom noonu lay lin fi kaak mooy tekki ak xottiku ak xar ñeen fukki a ñaar fukki aay la ak juróom di téeméeri baat ak juróom ñaar di ñeenti téeméeri xaraf ak fanweer dana jàngale dekki yowmal qiyaama fay geñ fa war a fay nit ñi kenn ku nekk na nga jëlee si téere ki nangul yàlla fan mooy mujjuwaayam ki gàntul yàlla fan mooy mujjuwaayam waayam loolu lay jàngale mu jeex bismillahi rahmaani rahim nee ila samaa'u bu fekkee ne jant bii astafirullah asamaan sii ngeen di gis ni jàkkaarloog moom un sakkat xottiku na xar malaayka yi cëpp cëpp comme niñ ko doon jàngee léegi wa azinat mu dégloo te topp lañ ko dégluloo dégg nga li rabbiha ñeel boroomam wa xukkat te déglu ga yey nag mu déglu déglu goo xam ne déglu nangu la ak déglu gu womatu wayal ardu bu fekkee ne suuf si ngeen di catang-catang yi dox di ci wax naam daraame fu ne ngeen fa naam daraame dat déndéef na ko tàllaleef ko def ko comme ni ñuy def ab der xar moo jël fees ko wal nag wa jël der ba dénd ko tàllal ko asamaan si noonu lañ koy def nga xam doo fi gisati lenn loo ciy fakkasal mm. doo fi xaw ma suuf si kon mm. doo ci ti xeer mm. doo ci gisati leneen waal kan mu sànni moom suuf maa fiihaa lépp lu nekkoon ci biiram mu génne ko mu feeñ wata xallan mu feex ca loola waa waasiran mu dégloo te topp li rabbihaa ñeel borom wax xokkat te déglu ga yey hmm? bu boobaa de da ngeen a xam ne kenn ku ne da nga la nga jëfoon mooy jawaab ja li bu amee war ngeen a xam ne am na lu xew hmm. yaa ayyuhal insaan hmm. yow nit hmm. yow laay wax innaka naka yow kaadixun aji sonn nga toujours toujours toujours yaa ngi sonn ci sa jëf ji buy lu baax yaa ngi koy sonn buy safaan yaa ngi koy sonn waaye bëgg naa nga xam ne ilaa rabbika jëm na ci sa boroom kada xan mooy da nga dajeeg sa boroom waaye yaa ngi sonn kadxan ak sonn la sonn nag lu mu fa mu laaqihi aji daje nga ak loola la sonn bis dana ñëw ñu wan la résultat la nga doon sonn mu del ci yow buy lu baax dana del buy safaan dana del si dégg nga nee na fa maaman utiya ndaal koo xam ne joxeef na ko kitaabahu téere jëfam bi yaminihi ci côté nday jooram moo xam jullit la hmm. kon côté ndeyjoor la koy jëlee hmm. kooku de fa sawfa yu xaasabu hmm. tel sud nakaa réglé xisaab xisaaban ak xisaab yasiran gu yomb yomb mooy yàlla def na ci mbiram ak jàppandal ndax yenent bi moo ne man uziba uziba ku yàlla réglé duma ku yàlla topp ba sës la ci bi war xam dana duma de yàlla bu mu ñu sës ci miir bi nag ku mu sës bi rek duma la dara nga ci mën yenent moom dafa xamoon loolu ba ku topp rek duma la kon su jaaree ñun xisaaban yasiira kooku affaire am baax na te kooku wa yanqalibu dana wàññiku ilaa ahli jëm ci ñoom ci biir aljana masruura mu nekk ku kontaan ci li yàlla fay mu def mu xaabala waaye waa maamun uti daal koo xam ne joxef na ko kitaabuhu téere jëfam mu dikkee ko wala adarihi ci ginnaawi ginnaaw benn mu bëtt ginnaawam ñëw ci kanamam nañu ci yàlla musal wala mu jotee ko càmmuñam hmm. loolu doy na waar kooku de bu lii xewee ci moom moom nit fa sawfa yad'u amaana mu woo jamono ba muy gis tiireem booba dikkee ko càmmoñ wala wala ci ginnaawam amaana mu woo su buuran ay alkande ey man yàqu fu ma jëm ey man fu ma jëm waay hmm? te yasla dana dugg saira sawaraw sair mooy awa yusla nag bu fekkee da ngaa jàng wa yusla mooy dees na ko dugal mm-hmm. bu waa afaal lay doon wala déet wa mm-hmm. yusalla mooy dees na ko dugal bokkut ak yasla moom moo fay dugg mm-hmm. mais bu fekkee yusalla la kon bu boobaa dees na ko ci dugal la lay doon lan nga ko tëgg <laughs> yow sa affaire la de laa yow laa wax innahu nag moom li ko yóbbee lii kaana nekkoon na fi ahlihi ci njabootam ci àdduna mm. masruwa nekk ku kontaan mm. ak a reewantaloo ko réyréylu mm. topp ba neexe ba kanam mooy ndigal borom bi innahu naka moom zanna wóor na ko ne an ci ne lan yaxuura dootul mën a dellu muk muk muk dégg nga balaa manaa dafa ko wóoroon ne dafa jàppoon ne kenn du ko delloo ci boromam lan yaxuura mooy kenn du ko delloo ci boromam balaa kay dana dellu ci boromam de hmm. inna rabbahu naka boromam hmm. di yàlla kaana hmm. nekk na basira di aji xam bihi ci doomu aadama ak li mu teewaale falaa ni ngeen ko foogee te déwul noona dangeen di yaakaar da ngeen di bañ a jaamu yàlla bañ a nangul alquran ngeen ñëw ci yàlla lépp yombee noona falaa du noonu daw saa it jee tax ñuy jaar côté boobu oku siw maa ngi waat bi shafaqi ci safax yi mooy xonk xonq yi des fii mm. gannaaw boo jullee timis mm-hmm. boo mel ni waa ji santoon tur wala waa ji mel ni muntaxaa mm. ñëw ji sëñ fàllu ju bëgg yëgal ne koy julli gee jot na ndax xam nga safax gi bu fàddoo ci la julli gee di jot ci jamono booba mm. waa ji daal xamaa yàkkamti ba mel ni muntaxaa rek ñëw ne sëñ fàllu ah sëñ bi dem mbàkkee xasaf gi fàddul sëñ bi ko kon de sang war na dégg nga dafa bëggoon <laughs> safaat yi fàddu na kon ñuy waajal julli mu nekk xasaf gi fàddu na sëñ bi daa ah kon de sangu war na wax na dëgg waaye waajal yoo xam ne dafa ni mun taxaam yi rek saa maa ngi wàcce safax gi wa layli ak guddi gi wa maa ak lépp loo xam ne guddi gi dajale ko ci ay mbindeef xeeti daaba am na yoo xam ne guddi ba guddi la yëngu saa ne maa ngi waat ci guddi ak li mu dajale ci xeeti mbindeef wal kamari maa ngi waat ci weer wi ida tasaka hmm. bu demee ba dajal leeram gi ba mat sëkk hmm. tolli ci ayaamul bii di hmm. di fukki fan ak ñett ñeent juróom na ñummu ñu maaral mat sëkk maa ngi waat ci weer woowu looy waat lii képp laay waat ni ngeen ko fooge te déewul noona mooy la tarkabunna daa ngeen topp war tabakan mbir an tabakin gannaaw mbir an googu nag bi maanaa baad lay yor dégg nga mbir gannaaw mbir étape gannaaw étape hmm. ngeen di topp ba teer ci sama borom ba teer ci seen borom hmm. mooy jaar ci tokk ma ni hmm. jaar ci deret jaar ci suuf jaar ci jëmm ngeen juddu dégg nga maam jaar ci juddu jaar ci nàmp jugee ci nàmp ga fer sax bëñ tabaarakallaahu raam tabaarakallaahu dox tabaarakallaahu jublu penku tabaarakallaahu dem daara wala dem école tabaarakallaahu am diplôme ya ngay am samp daara wala nekk ci bureau bay liggéey tabaarakallaahu am jabar mm. yee ca tegu njaboot am mm. tabaarakallaahu màggat am mm. tabaarakallaahu feebar am léeg mu am dee am tabaarakallaahu ñu suul leen ci bàmmeel yi tabaarakallaahu ngeen ginnaat ci bàmmeel yi yowmal qiyaama taxaw la tarka bun na tabakan an tabak mm-hmm. sama borom nee na bàyyi leen xel li may wax de loolu rek lay waar mm-hmm. fa maa lahum amuñu lan moo teekoon afan lan moo xew mm-hmm. a ah, lu xew ba ñoom la yu mu gëm yi jaaxal na ma man lan moo xew ba way daa kuréa bu fekkee jàngeef na mm-hmm. alayhim ci ñoom mm-hmm. alquran alquran mm-hmm. ñoom laa yasjuduna du ñu nangul alquran ji su jotal ko muk ba li fi nekk mooy na kafaru ñi nga xam dañoo weddi yàlla daal ñoom yu kasibuna weddi nañu yawmal qiyaama te wallaahu yàlla aalamu aji xam la bi maa yuun ci lépp loo xam ne dajaleef na ko ci seen téere jëf ya fa bashirhum dëgal leen loolu nag taxakum la bi adaabin ci ay duma alimin yu méttee métti ñoom ngay bégal ñi nanguutoon nga nekk ñëpp nga ciy bégal mu ne déedéet illa allazina amanu ñoom da bokkuñ ci mbégte loolu bam mu des ñi nga xam ne gëmoon nañu yàlla wa amilu saalihaati ñuy def farata yeeg naafile yi ñoom lahum ñeel na leen ajrum seen pay goo xam ne xayru mamnuun du dagg ba faw dafa continuer ba ila an yarisa allahu al arda man alayha saar woo eh, eh, eh, dugg aha mhm. dama la fàtte wax waaye kon ba ngay jël sax dañuy jël fii rek arrêté bi xam nga guddutul mënatul quinze minutes boo seetloo mhm. saar waaw kon dañ koy jël fii rek mu départ waaye comme continuer rek mhm. màkka la wàcc buruj mooy tekki ay ngunu yoon yi nga xam ne ci la jant bi jaar di fukki buruj ak ñaar buruj bu ci nekk waxoon nañ la fan yam cay am départ na fii de buruj bu ci nekk waxoon na la jant bi ñaata fan la fay am mm-hmm. ci gannaaw mm-hmm. boo fàttali ko waxoon nañ ko di mm-hmm. ci tabaaraka alladi jaala fi samaay buruja am na luñ ca waxoon téeméer euh, ñaar fukki aay ak ñaar di téeméeri baat moom saar wi ak juróom ñeent ñeenti téeméeri xaraf ak juróom benn fukk ak juróom màkka la wàcc nag tawxiid ak muñ loo jullit ñi xam ne lépp ci yàlla rek lay teeri bismillahi wa samaay giñ naa ko ci asamaan si zaatil buruj bay boromi ngunu bay boromi buruj walla yow mi ak bis ba al mawuud bañ leen dëël jox leen ci rendez-vous pour ñu war ci ñëw teew ñëppay ñëw buur dana ñëw baadala ñëw ku am ñëw ku ñàkk ku ñu xam ak ku ñu xamul ñëppay ñëw mooy yowmal qiyaama borom bi nee na maa ngi waat ci bis boobu wa shaahidin ak aji seede ji mm-hmm. ñenn ñi ne mooy yowmal jumaa mm-hmm. wa mashudin mm-hmm. ak bis ba ñëpp yi teew ak bis ba ñu seedeloo di bisu rafa ci ñi ko firee noonu euh, dañuy wax ne yowmul mawud mooy yowmal qiyaama yowmul masuud mooy yowmu arafa yowmu shahid ji mooy yowmul jumaa am na ñu wax loolu am ñu ne déedéet a shahid daal yowmu shahid daal wa shahidin daal boo ko déggee mooy bisu naafile yi ñuy def ci weeri koor yi wal masuhud boo ko déggee mooy arafa ñenn ñi ne asahid mooy yàlla al mooy yowmal qiyaama ñenn ñi ne di asahid mooy yenent yi al mooy xeet yi ñenn asahid mooy sa cër yi yow doomu aadama al masuhud mooy doomu aadama mi ñu seede ëllëg yowmal qiyaama kon fi nii mi bëri na ci waaye lu am daal mooy mat na bàyyi xel dafa am lu ñuy wax saabul uqudut di waa ngaalaw ya ngaadaw nag waxoon nañ la ko fi jullit ñi dañ daan ñëw di tawat ay mitit mitit ba benn bis yeneen di leen nettal ne am na benn buur bu fi nekkoon jiitu woon leen fi buur ba nag ko amoon doole la amoon na benn sëriñ bu téye woon ci meekaayam daan ko xoolal mbir yi sëriñ boobu de ba mu demee ba màggat dafa yable ci buur ne kaa ah, buur xam-xam bi nag maa ngi màggat foog nag ñu seet ku ñu jéem a jox xam-xam bi pour bu ko defee su ma fi jugee mu mën wut sama place doon la di doxal li li ma doon doxal ci yow buur xal seet xale boo xam ne xale bu yeewu la xale bu muus la jël ko yabal ko nekk del dem ci sëriñ ba mu lay jàngal bagage yi ndax bu fi jugee nga mën a fees dell place ndeke ci yoon wi xale bi buy jàngi daare sëriñ ba am na benn labbe bu yor église sam foofu labbe bi di waare taalibe bi toog fa déglu fa ay quelques minutes ba gis na lii labbe biy jàngale mooy dégg la sëriñ ba lee di jàngal ay dóor kese la mais toujours suñ nekk demal ci sëriñ ba day tardé ndax jaar gam jaar ci labbe ba su ko dee bu ñëwee sëriñ bi ne ko yow loo doon def mu ne ko suñu waa kër daal di koy dóor ta cawa cawa caw ba mandi nekk di bàyyi naa naaje jàng si su wàññi koo di ñibbi waa seen kër jaaraat ca làbbe ba jëlaat leçon déglu waaraate wi tuuti su dégloo waaraate wi àggaat kër buur buur na ko la doon taxawaalu ci àll bi yéen nii ngeen def tam ngeen su leen ñibbi leen ngeen nekk ci àll bi taxawaalu yitti ba mu tàlli xam naa ne balaa njàng mi moo ko moom dana dee moom sëriñ buur baa ngay dóor sëriñ baa ngay dóor di ko ayelal di dóor dóori naan mu ñëw ci labbe bi wax ko benn bis labbe ne ko ah kon leen ay am boo demetee ca sëriñ ba lay jàngal njabar su la waxee lu tax nga tardé ne ko sin waa kër ñëw ma téye woon ndékki lay a pare su demee wax loola sëriñ bi bàyyi mu ne ah man kay yeex naa ndekete su ñibbi waatee dem ca buur buur ne ko loolee mu ah sëriñ bi ma yeex a yeewi kat mi ngi may door a yeewi hmm. maage mu ne ah lab bi yow kat yeex nga hmm. xalaat bu rafet bii kat boo ci yeexoon musiba am ci noonu ci noonu ñu nekkee ci noonu ba benn bis hmm. nit ñi di jéggi yoon wi am daaba ju rëy rëy saaru jaani ñàngoor joo xam ne wala ninki nanka boo xam ne ci ni mu ko mën waxee moo gàll yoon wi kenn mënut dem kenn mënuta a dikk te kenn ñemewu ko te kenn ñemewu ko dégg nga ba mu ñëwee moom xale bi yem ci ne dinaa xool tey li ma làbb bi doon jàngal moo nekk dëgg wala li ma njabarkat bi doon jàngal moo nekk dëgg daal di jël aw xeer sànni ne bu yàlla bu fekkee li ma njabarkat bi doon jàngal moo nekk dëgg na daaba ji jug fii dee léegi nit ñi jàll mu sànni daaba ji ne sa mi gën a yëkkati bàngooram boobu mu ne yàlla bu fekkee li ma labbe bi doon jàngal moo nekk dëgg bu ma ko sànnee na daaba ji dee mu sànni ko rek daaba ji dee nit ñi tàccu yu xooy jàppal bàyyi ah yow di nangam nangam ñëpp ko gone gi yow dina kur bañ ko songee ba cooli jeex mu ñëw ne làbb bi nag sëriñam bi làbbam bi naka ah, dëkk bi nag tàkk na lakk naa dëkk bi peccam ginnaaw kat ndax am na lu gaaroon fii nit ñi te ci xam-xam ma jàngal ci laa ko defee mu ne ah bu ko gaa yi yégee ma gaa yi yëg ko bañ ko pamti pamtee mu teg leen làbb bi gaa yi ñëw rey làbb bi làbb bi jàngal na ko nu ñuy fajee xale bu gumbaag yooyu yëpp mu koy saafara ba coow di demee ba ci buur bi nag buur bi ne ko buur bi ñu ne ah sa dongo bi léegi mokkal na de léegi ne moom ko fi judduwaale ci gumba mbaa nga judduwaale ndoxam siti mbaa jàngoro yi tey yi tële moom daf kaa faj buur bi nag indi natt ko naka yow mën ngaa saafara mu ne ko waaw waaw du man maay saafara sax waaye yàlla ci boppam mooy saafara mm-hmm. buur ak ñi gëmoon jàpp nañ ne mooy yàlla naay saafara de waaye ci kàttanu yàlla laa koy defee mm-hmm. ñii nga bëgg ma saafara ci seen kanam nag soo bëggee ma saafara leen mm-hmm. mooy dañuy gëm yàlla bu fekkee nangu nañ loolu ma saafara bu fekkee nanguñ loolu nag tabaarakallah ñi ci nangu ñëpp mu ñaanal leen ñu wér waaye dañun rek teg xale bi pression rek pour mu weddi dal di wax xale bi ku la jàngal njabar gi wax naa la ko ñu dem rey buur sa ñëwee nag ci lañ ne xale bi moom foog da ngay génn ci li nga ne yaa ngi ànd ak yow ci ngëm gi gaa yi ku ci nanguwul ñuy jël sa bopp bi si ko xal ko ñaari gaal teg ne ba ñu gëmoon xale bi ñëpp ay junni junni ñu rey leen ci noonu xale bi ñu jël si nekk weddi mbaa dee boole kaag ay nit waaye ñoo ñooñu sottiwul buur na xam ngeen nu ngeen def léegi dama koy booleeg meneen mbooloo ñu yóbbu ko ci montagne mu kawe kawe kawe kawe mm-hmm. su ngeen ko yóbbu ba foofa nga naka weddi mbaa ñu sànni la ci suuf nga dee mm-hmm. ñu dem ba foofa mm-hmm. gars yi wër ko montagne bi coow li ne kuur da nga weddeeg doo weddi mu ne yàlla waxal ci ñii bëgg ma sànq yàlla muccal xale ba rësal doj ba ca kaw gaaye gaaye dee mu ñëwaat ci buur buur nag antama gars yi mu nekk dee nañu mu nekk lan dee nañu de mu nekk ah, mu ne yàlla laa ko wax mu ne ka ah, yow da ngay font di jëflante bi may jëflante yow des na de daal di koy tëmbal ci gaal gi boole ka ak ay nit ne dugal leen ko ci saako su ngeen demee ba ca biir ngeen tëmbal ko ak xeer ndox mu di ci biir ndox mi bañ ñëwee ba ci digg géej ga ba dara lu waaj ak taxaw seet gaal gi mu ne yàlla waxal ci ñooñ gaal gi yàlla labal waa gaal gi moom yàlla muccal ko mu teer si buur ne ko ana gaay mu ne ko ah, gaay de yàlla labal na leen mu ne ko yàlla man mu ne buur di ma lay xamal mooy mënoo ci mën tus de yow nekkuloo ku ku may rey de lenn rek nga mën a reyee te mooy boo nangoo def lii ma la wax lii ma lay conseillé daal bu fekkee nangu ko kaa déglu daa ma rey waaye bu fekkee nangu wóoloo rek doo ma rey mu ne ko loolay lan mu ne ko da may pendre ci garab gii nekk ci pénc mi te boo koy def it na dëkk bi yëpp ñëw réew mi yëpp fekkee ko nga jël fett bi soo demee ba kay sànni nga ne maa ngi koy sànni ci borom xale bii door koy sànni soo ko defee rek rey ma te booba buur dafa gëm loo woon ne nit ñi ne mooy yàlla xale yi bëgg dàq loolu tax mu indi def fexe moomu pour fexe fa dajale nit ñi bañ ca defee sànni ne maa ngi koy sànni ci bismillah ci barke borom xale bi mu sànni rek buur a def loolu di xale ba dee ñëpp na ashadu an laa ilaaha gëm nañ borom xale bi gëm nañ borom xale bi buur na lu ngeen ko fi gëmee nag lu tax ngeen ko fi gëm ñu ne ah gëm de ndax moom wan nañu lu tax ñu mën ko gëm yow nag wanuñu dara mu gas ngaa daw bu rëy rëy pax mu rëy pour sawara képp ku mel ni xale bi mu jël sànni la ci biir sawara si ku dikk na ne weddil nga bañ a weddi mu sànni la ci biir sawara si ku dikk ne weddil nga bañ a weddi mu sànni la ci biir sawara si di ko def di ka def benn jigéen ñëw ak xaleem xale bu muy nàmpal mu nekk ñu jël ko bëgg sànni ci sawara si ah ndaw si bëgg a hmm. na day génn ci diine ji yàlla yaay xale bi ne ko hmm. déet yaay continuer la lama gis ci kanam hmm. moo dàq yaay ji daal di nangu moog doom ju ndaw jooju tabaarakallaahu daal di dee ci biir sawar sa lam ca lakk nag ci ay góor ki jigéen kenn xamul ci ay junni junni nu mu lii xewoon na fi yàlla di seetaan yàlla ne ña ko doon def suñ ma baaloo ma baal leen mbaa yëngu loolu nee na ñu doon def jëf ñaaw wii ëllëg yow fii ci àdduna suñ tuubee ma baal leen kon ay nit jaroon na ñuy sacrifice seen bopp pour rawale seen pas-pas kon yow julli bi itam loo ci dajeek war nga ko mën a nangu ngir yàlla ñu dox xutila yàlla na dee day rëbb ashaabul uxdud waa ngaa dew ya mooy borom paxi sawara ya borom pax ya annaari mu badal ko ci pax yay sawara wala annaari booy booy sawara bopp hmm. annaari sawara salaax zaatil waquut hmm. booy boromi tàkk-tàkk hmm. ishum ba nga xamee ne kilifa ya xawlahaa ña nga ca sawara sa teg seeni sées qu'uudun di way jékki ku fa ñëw ñoo la weddil nga bañ wedd ñu dugal sawara wahum ñoom ala maa yafaalun ci liñ doon def julit ñi ñun yàlla suhuud bil muminin lañ doon def julit ñi ñun yàlla suhuudun ñu ko fekke woon la ñu mënoo musal jullit ñi waaye dañ leen di bàyyi noonu rek wama naqamu kontruñ minhum ca jullit ña mu def tawkiidul madixi bi maa yusbihu zamma illa an yuminu lu lu gëm goo xam ne gëm nañu ko billaahi ci yàlla alaazi yàlla may aju nat ci nguuram waaye alxamid yàlla mi nga xam ne mooy ku ñu sant ki alladi mooy buur ba nga xam ne lawu ñeel la ko mulku samaawaati moome doog asamaan si wala ardi ak suuf yàllaa moom wallahu yàlla sayidun ku fekke la mm. ala kulli shay'in ci ne mm. ñam jaraloon seen ngëm mm. ñëpp xam naa ko ñëwee diit ñëpp xam naa ko inna allazi naka gaa yi nga xam ne fatanu fitnaal nañu natt nañu almuminin way gëm ñu góor ña wal muminaat ak way gëm ñu jigéen ña ñu leen doon lakk ca biir sawara ña doon def loola summa lam ya tuubu te tuubu ñu ko gannaaw ga waaye mafum day taxaw ne suñ ko tuubee dara ëllëg da nga naan xutta aljana ñu ne xutta aljana loo leen mënal mm. moo tax fi bu la fi nit tooñee mm. wala mu tooñ fi boroomam mm. buy tuub ëllëg direct aljanna mm-hmm. dara waaye suñ tuubu dee fa lahum ñeel na leen alaabu jahannam wala hum ñeel na leen alaabul xariq mbugal moo xam ne mbugal muy lakke la ah. dafaat na mu xaabal ba tey waaye na la si naka gaa yi nga xam ne amanu gëm wa amilu saalihaati ñuy def farata yeeg naafila yi lahum ñeel na leen ay aljana yoo xam ne tajri naa daw min taatiha ca suuf aljana ja al anhaar yollay ñeent dalika lii kese al fawz moo di texe al kabir wa buruj am na ñu ne jawaab ji nag inna bas rabbika am ñu ne déedéet hmm, ci loolu xutilaa saabul uqdud am na ñu ne déet waaw ndax bu fekkoon ne jawaabu xasam dafa war a am laam am ñu wax loolu na kon la xad xutila kon loolu dañ ko fay xasafee am ñu jàpp ne lii mooy jawaab bi nag inna batsa rabbika naka sa congul boroom sa doolay boroom la sadidun lu taratar la ci kum bëgg a jàpp innahu nag moom yàlla hu moom laa wax yubdi mooy aju sos bindee moo leen keree wa yuidu moo leen di dekkalaat kon dara ko ci mm. waxu moom yàlla mm. alxafuur mm. mooy aji jéggale bàkkaar yi ku ne mën naa fee jéggale bàkkaar ku dul yàlla dalay nax alwaduud mooy ku ñu sopp ki wala mooy aji sopp jëmale ci ay nitam ak i xarat xaritam defal leen teraanga zulaar mooy borom aras ba moo ko bind almajid tedd yàlla moomu faalun mooy defaa koon bi li maa yurit ñel lu mu bëgg mm-hmm. lu ko neex moo fi am mm-hmm. ku ko neex moo lay dugal aljana waaye ku ko neex moo lay dugal sawar xalaataaka mm-hmm. dëgg-dëgg ñëwal na la xadiisul junuud waxtaani soldaar ya informaay soldaar ya ndax dikkal na la waaye yow rasulillahi wala yow jullit bi a kay junuud yi ñan la ñu firaaw na de ci yàlla ci la woon mu badal ko ci wa samut ak samut ci junuud yi lañ bokkoon bal fi nekk mooy alli na gaa nga xam ne alkafuru weddi nañu weddi nañu yàlla fii taksiir ñu ci seen weddi gi rek ci mm-hmm. weddi alquran rek mm-hmm. wallaahu yàlla mm-hmm. muhiitun aji peeg la leen min waraihim ci seen kanam ak seen gannaaw moo leen ndar kàpp fu di defan ci ñoom lu ko bëggan lu ko neex ci ñoom balli fi nekk hu moom balli fi nekk moom huwa moom alquran joo xam ne majidun bu tedd la fi lawhin bu nekk ci aliwa mahfuzin ba di bañ garde saar woowu déedéet bul continuer arrêtal arrêté noonu la day